Rewmi 24 TV. salaamaaleykum partenaires maa ngi leen nuyu di ziar di waa biir maanaam vidéo bi dama ba yem si TikTok bi waaye nag dama bañ ñenn ñi tàbbi si pièce muy passeeti muy waa biir ndax gisal si ay faux compte yoo xam ay faux compte la yoo xam ne waa APR ñoo si ginnaaw di dal si kaw waa biir di leen jaxase nga gis ñii taxaw ni maanaam di xuti candidat biir ni naan Sonko lañ gëm xoolal seen loxo yi maanaam li ngay gis ñetti patriote yu daje ñetti patriote yu daje te brasere gisoo si benn loxo ku si takk brasere doo gis ñetti patriote yu daje te seen loxo yi doo si gis kenn ku takk brasere te gis nga loxo yi te ñimewunoo feeñ nga xam ni maanaam lii waa APR ñi ñoo koy def waa APR ñoo def seeni lobby pour waa Pastef waa biir di dal ci kaw waa waa Pastef waa Pastef di fay pièce boobu lañ leen taam tàmbal nag di leen mën a xalaat waa Benno ñun suñ bopp yi dafa baax yéen waa kër dafa ñun dañuy xalaat te suñ bopp yi dafa baax mun leen noo jaxase tuuti ngeen lii dafa ndaw waa Pastef fu mu ñetti patriote fu mu daje si gis ñaar ñu takk bracelet wala kenn ko takk bracelet seen loxo yi ngeen fi génne benn loxo bu am bracelet amu si seen sëy yi ngeen ne ñu ne ko waa biir leen boole xaajale de bàyyiwul ngeen nëppulu dégg ngeen bàyyiwul ngeen nëppulu te sawite tëri seen pièces yi ngeen te waaye nag kuy seen kuy seen njiit ndafa kuy seen njiit ndafa soo mënta defee manégas ak yooyu ñu laaj la ko waaye bàyyi xel baax a ku yem si vidéo bi bàyyil sa xel si li ma la wax waa APR ñoo koy def